alhamdulilah alhamdulilah ñoo ngi rafetlu seen teewaay di rafetlu kàddu yi nga fi yëkkati ah, man seex Ba laa tudd maa ngi dëkk fii ci Touba Daaru Tansil fii nag sama cosaan la boo xam ne fii la samay waajur juddoo sama maam sax bi jur sama baay fii la gane àdduna sama maam boobu nettali na ma nee am nañ fi fanweeri at ak ñaar ñu doog a dégg ñu doog a dégg sëñ Touba ci bépp gi fii boobu fii ab foore la woon loolu sama maam nettali na ma ko yàlla dogal nag booba léegi njaboot gaa ngi fi fi mu ne daanaka bu fekkee ne ci wàllu sama baay man maa ciy mag su ko defee li nga xam ne moo ma arwe boo ma yittewoo ngeen teew fi mooy dama fee yoroon soxna soo xam ne sama ñaareel la sëy nañ lu sëy nañ lu jege fukki at su ko mutit nam jege na ko lool lool yàlla dogal ñu am ñetti bant mooy maanaam ñu am ñetti doom léegi bi mu bi ñu amee ñetti doom mu yëg ne damaa am soxna su bees mu ne ma yow de yëg naa ne dangaa takk soxna ma ne ko waaw takk naa soxna mu ne ma yow de yëg naa ne diw sax nga takk ma ne ko waaw diw de laa takk mu ne ma kon may ma sama baat man mënumaa wujje kooku il faut nga may ma sama baat nekk dem takk nga soxna talaata boobu mu daal di jéggi xale yi daal dem takk bagaasam looy taksi def ci yéreem dem bi mu demee toog diir lu avons a fukki fan ak juróom ñu convocation de la justice ba mu indilee convocation de la justice ñu dem wuy ji mu ne day ñaan baat ma ko man mayuma baat ndax dene ma sama baat jox de la justice def négociation yi ko ci war gis ne nous koo régler tribunal ne kon damay transféré dossier bi tribunal ne ko yow da ngay dem commandé waat procureur mu defal la defal la kii pour ñu àtte la léegi mu ne ma Cheikh yow demal toog dinañ la woo keroog bi ma jógee maison de la justice jëm si waat ci tali bi ànd ñaari mukallaf moom soxna si daf maa topp topp di ma daggal ay saaga ba di may ñëw ci tali bi ba ni may jël oto waaye man ma xam ne rek li mu bëgg li mu bëgg rek naa ko laal ndax yàgg na ma ko wax dóor ma bis boo ma dóoree ci ngay mujj dóor ba yàlla musal ma ci loolu jotu musuma sama loxo musu koo laal bi mu demee xool procédure tribunal bi gis ne procédure tribunal bi day gudd ndax méthode la si wax nañ ko tas say tribunal yombut mu daal di dem ma koy dégg ci biir dëkk bi lu tolloog bi semaine benn bis rek mu daal ne jalas ànd ak ay gaay bi gaay yi ñëwee fëgg ma ubbil leen ay gaay ay gaay egsi fi fëgg ma ubbil leen ñu ne ma ñun de waa safinatul amaan lanu ci lañ bokk man leen luy seen tank ñu ne ma ñun de modlo ngaabu mo ñu yoni ci yow man ne leen lu modlo ngaabu wax mu ne modlo ngaabu de dana soxna sa soxna si nga amal problème mu nga kërëm neena nga ñew so ñewé moom dina ci def négociation yalla mën na fek dogal ngeen juboo ñi bisi su ngeen mënta jubooti nam dina xol ban solution ngeen di trouver bo do loru soxna si du loru xalé yi du loru ah man ma am ci moduloo ngaabu yaakaar c'est sëñ touba la sama sëriñ la nii sama sëriñ doone sama sëriñ wax naa ko ko ci téléphone man leen digam yooyu looloo leen tax a jóg te man li ma gën a ragal ci yéen soxna si de def may tuumaal di wax ci man lu ñaaw est-ce que du loolu la leen wax ngeen ñëw di ma di ma enquête su fekkee loolu la kër gaa ngi noonu vérifié leen su ngeen fi gisee lu méngoo wut ak lu dëkk bi bëgg ngeen xam ne maa tooñ am ci ñu jóg vérifié dugg génnaat ñëw ne maa nu di wax diggale këru taalib rek lañ fekk waaye nañ dem nañ dem wuy ji mët loo man leen nañ dem ma daal di jël xale yi ànd ak ñoom dugg ci benn oto bi bi ñu demee ba ci kaw tali bi fa lañ fekk soxna si taxaw ci benn étage bu ñuy wax étage su bal lañ jaay nekkuloon kër Modou déedéet fii lañ ko fekk ci kaw tali bi mu taxaw ndek bi ñëwee ba ci fee dañ ko dépassé déposé étage su bal la njaay ñu ànd mu dugg ci beneen oto ba ma dugg ci oto bi bañ dem kër soxna may gi nga xam ne fa lañ def seen euh, seen seen seen dajje ba ñoom sufa na fi ñuy dajje. seen 16 bi ñëwee dugg ci biir fekk ma nga ànd ak jëmu ji tok ñu daal jël soxna ci duggal ko ci benn néeg ak xale yi daal ne ma yow nag na nga xam ne la laa jàpp punition ñoom ñoom ñoom ñoom ak wax ku ñu wax eh, kooku dense lañ koy wooxe foofu xaw turam dense lañ koy wooxe waaye man Massayer jeng, laa ci gën a remarque ak ku ñu wax Mbacke Kanji léegi Massayer Dieng moomu bi mu ñëwee fii ma ne ko Sayer ndax bi mu ñëwee dama ne ko noo tudd mu ne ma Sayer Dieng Sayer laa tudd ma ne ko noo sant mu ne ma Dieng ma ne ko soxna si de polte na ma pelente maison de la justice sunu dossier baa ngi tribunal léegi est ce que loolu jarati na négociation Sayer Dieng ne ma tuubaa de justice amu fi yoon fii ñun ñoo fi doxal. Ah wallaahi al asim lii la ma Sayer Dieng wax justice amul Touba yoon fii ñun ñoo fiy doxal lii lu fi doxal rek justice amatul lu mu ciy wax maa ngi yoo xam ne sax loolu wax nañ ko ci. Mm-hmm. waaw maa ngi audio yoo xam ne wax nañ ne góor na ma amul yoon ci Touba loolu euh, Mbacke Kañ wax na ko ci audio bi Sayer wax na ko fii ci sama biir néeg bi Sayer Dieng moomu nag bi nga bi nga xam ne nañ noonu ñu daal may jàpp pénition sonal ma fa lool ci ay. ñoom dañ laa jëpp tëj ma ci ab salle de ñetti nit ñoo ñëw ne ma futteekul kenn daal di may jàpp xam nga duñ la ñemee dóor nii pour dañuy éviter pour gaañ la audio boobu dinaa la ko tegal. ni may torturer di ma torturer ne ma legui léegi mënuloo ngaabu nee na sëy nga may ndaw si batam te jox ko ay domam te lolou ndigal la te ñun dañ koy hmm waaw audio baangi ni sama sama sama sama sama portable ndax audio yoy dañ ko jëlone diko awayanti seen bir bo ñu envoyé ko ko xamne sama wëlëre la mu envoyé ma audio yi ñu ngi ni sama portable tegal naa ko kilifa kilifa. maanaam ñoom dañ ko doon yónnee bu far mu teer si waat ci yow. waaw foofu far yàlla dogal mu teer si waat ci man te loolu yëguñ ko tegal naa ko kilifa yu bari ci wàllu nguur gi ak ci wàllu diine bi léegi bi loolu amee foofu lañ ma téye lii bare xaa lii bare ndaw si ak xale yi mu dem téye ma fa boo ko sama sëriñ yégee nag ci la woo Modou Lo Ngabou ne ah kooke nga téye de na nga xam ne ci man la bokk kooke sa gaa yi sa waa safinatu amaan yooyu lay tudd sa mbooloo moomu kañu téye ñoom Sayar ñoo ñu dee kañu téye na nga xam ne ci waa ci man la bokk ci lañ ma daal di gaaw libéré nu mu gën a gaawee waaye fekk na ndaw si moom dem na. bi mu demee dafa yóbbaale doom yi. yóbbaale doom bi mu demee nag boo kër Modou Lo sëñ aham sama sama sëriñ woo sëñ Modou xamal ko li ma dem tollu ci moom dafa jëlaat ndaw si delloowaat ko sama sëriñ. Ah waaw. moom da cee bëggoon a rocceeku. waaw sama sëriñ nag ne ko ndaw sii ay dossier a ngi ñu ngi ci yoon man ay doomam duma ko laal ndax man aw ma aw ma jël xale di jox baay walla di jël xale di jox yaay man loolu du sama atte man bu doon ñaari taali bi am réeroo ñëw ci man te yoon dugg ci dinaa ci wax la ma xam waaye fi ne ndegam yoon dugg na ci na nañ dem topp yoon ñoom ñaar lu leen yoon may ñu jël. bi ame yo après da nga porter plainte. waaw bi loolu amee ma xam ne amatuma solution ma dem porte ma Sayer Dieng plainte ci procureur ne ko daa jël samay dom, joxe ko ci ne ndigalal Serigne Serigne Mor loolu la ci am léegi bi nga xamee ne plainte bi dugg sama Serigne woo na ma ne ma Serigne su bari de woo nañ ma di ñaan nga retirer plainte bi ma daal di koy tegal audio yi yiñ may torturer. ak yi ñu wax ne seen seen njiit moo leen wax ne leen na na na tas na sëy bi jox na ndaw si ay doomam bi ko sama sëriñ dégloo mu ne ma lii demal nga tegal ko sëñ Modou mu déglu ko nga wax ko li ñu la def waaw ma commandé ma jaar sama benn nijaay boo xam ne moog sëñ Modou Lo ñoo dëkk ay ay wëllëre lañu yàgg nañu ay nit ñu ay ay cosaan lañu foofu ma woo ko mu sama nijaay boobu sama nijaay la sama baay la te moom itam kilifa la ba ma ko woowee mu ne ma xam naa Modou Lo dinaa ko woo mu woo Modou ne ko yow de sa sa sa sa mbooloo mi dañoo jote koo xam ne eh, sama sama sama sama sama jarbaat la damaa bëggoon nag ñu toog waxtaan ci mu defal ñu rendez ñetti yoon mu rendez-vous bi di faussé. bu ngeen du leen. non day def rendez woote waat ne am na lu ko empêché waxaat sama nijaay bi ne ko may mu am na lu ko empêché ba yàgg sama nijaay ji woo ma ne ma Modou Lo moo ma awaaye numéro bi nee na nga woo ko ci ma daal di koy woo moom Modou wax ko comme li ma la wax ni ni fi gaa yi dikk ak ni ñëwee ci aw turam mu ne ma man de loolu ànduma ci diggale ma noonu te doxewuma noonu comme ñoo ñee def noonu de ñoo ko def ci seen coobare yi bopp. mu dégager ci responsable. waaw ñaan na ma nag nañu dox ci dox yi nu taalibe nañu seet nañu def négocier ba xale yi ñu ba jàmm lépp jàmm am ma ne ko waaw loolu de moom sax ku ñu ñaan jàmm du ko mën a bañ waaye man de lii du loo xam ne mën naa cee reculer. dow te feeg jotuma sama njaboot ñu delsiwaat sama loxo ak it ñu delloo ma sama àq ji nga xam ne moom lañ ma ameel muy fekk ma ci sama biir juddu toroxal ma yóbbu ma seen bureau jàpp ma comme punition boo dégloo audio yi. maanaam yow day yow kon da leen a toppee euh, séquestration lii tubaab di wax séquestration maanaam téye nit ci lu dul coobareem. waaw ma ne man ma ne la esclave lañ ma defoon weesu war naa punition ci ñoom. ay xaste ak i saaga ak def nit ki loo xam ne wóor na la ne lii dina metti waaye du wax du am màndarga boo ma boo ma signé fa sax. boobu ñu la doon defee loolu fan la nekk exactement. bi kër Soxna May boo ñëwee boo boo ñëwee ba kër sëñ Saliou Mbacké gi am na mbedd mu dox di bu mbeddum ay numi rek foo boo taxaw foofu ne ne kër Soxna May rek dinañ ne mu ngi jàkkaarloog mbeddum eh, ay mbedd moom rek garab yi daal xuddoo si yaa daal yi féete. waa ci côté mais bi nga léegi bi nga demee porte plainte boobu. est-ce que après euh, fan la mbir yi toll. waaw porte plainte bi ci procureur laa dem porte leen plainte plainte que plainte bi keroog bi muy wàcc police yàlla dafa dogal ma mu fekk ma fa. bi muy ñëw ci policier bi nga xam ne moo war a eh, eh, saytu dossier yi eh, tasaare ko ci bi moom bi mu ko ubbee nii dégg naa muy wax ak kii ne ko procureur nee na kii ñu jiiñ lii ci xale yi ak soxna ci nañ ko recherche lii bu ci laalee dara nañ ma ko téye lu mu gën a gaawee waaw ñu ne pëlkaloor moom loolu la wax. maanaam maanaam enquête. enquête eh, enquête bi daal bu fekkee ne kii ñu wax ni lii lii lii moo ko def nañ ko jàpp nu mu gën a gaawee. lu tax police jàpp leen booba. léegi nag police ah woo nañ ma ay yoon yoon dem naa fa man euh, ñëw naa ñu déglu ma déglu nañu sama témoignage bi euh, ñoom itam mm, kii commandant bi yor dossier bi nee na ma woo na leen déglu leen waaye ñoom dañoo indi ay tuuma ci sama kaw. Eh, ndax loolu so soxna si loolu lay doxee méthode boobu la leen dox. kon ñoom dañu bëggul euh, diligenter affaire bi daal. waaw man de xaw naa cee sonn ndax maa ngi dem ak ñëw rek ndax euh, ah waaye nag oh, am naa yaakaar lool nag ci commandant bi am naa ci moom yaakaar lool wax dëgg yàlla ba leneen di ma ci fekk ndax li tax loolu dina may déglu te dina wax ak man ndax falaa laa jóge nii nee na ma moo ma convoqué woon tey ci 10 heures boo ban heure lañ fa jóge dix ba ay boori une maa nga fa ah, bi une heure jotee ma ne ko nag man damay julli ji jumaa mu ne ma demal nga julli ji ñëw ba ma julli jee ñëw bi ma xëyee dem Massaer Dieng gis naa ko fa moom Massaer Dieng mi ma porte pelente ma def ci sama turu pelente moom gis naa ko fa muy dugg ak a génn léegi bi ma ñëwee julli ji jumaa ba ñëw nag gisaatuma ko waaye bi ma ñëwee commandant bi fekk na ma fa ma toog mu ne ma léegi daal gaa yi dañoo miim dañoo miim ci joxe xale yi dañoo miim it nam doonuñu woon personne bu bari bi ñu fay ñëw trois personnes la woon kese dañoo miim yu bari daal yoo xam ne def nañ ko te yëguñ ne maa ngi ak yi te léegi loolu bi ma ko waxee mu ne ma léegi da nga may mayaat moom commandant bi tey li ma wax laay mu ne ma da nga may ba talaata bu talaataa dinaa convoqué mboolem ñenn ci bureau ba ñu ñëw fii woo la nga ñëw nga wax ma kee ak kee ak kee ñoo ñëwoon sa kër. Hmm, waaw Mhm. fof dal la mbir yi toll. waaw waaw ndax yow fas yéene nga bayyi wala da ngay dem. ba xalaatuma ko man kay xanaa ñu wañ sama loxo ne ma ndax sama sëriñ woo ma nee ma dama lay ñaan dama lay ñaan la ma wax de dama lay ñaan nga bayyi ndax kilifa yu bari ne woo nañ ma di wax ak man ma ne ko nag bay gi moom duma ko mën fekk sama njaboot del si waatul ndax xam nga foofu bay bi dafay doon daasi ci man sëñ bi ndax xam nga lu tax muy doon daasi ci man ñii dañ maa tuumaal loo xam ne man xaw teg ci sama der lu ñaaw su ma rikkilee day mel ne li wax dëgg la ñu tooñ ma ba pare biim ko nañ nangu tooñ gi delloo ma sama njaboot soxna si topp tribunal tribunal tas sëy bi bu sëy bi tasee su ko yoon joxe doom yi mu dem ak doom yi su ma ko yoon joxe doom yi ma xam ne man la ko yoon jox waaye man maa ngi toog nii lu tolloog weer ak fukki fan ak juróom te dégguma ci xale yi dara xaw ma ci ñoom dara lu ma naqari la nag ba ci kanamu yàlla surtout xale yi soxna si moom man ba ma yëgee ne séyatul yàgg na ak ab tasam moom méttiwu